jëmale ko ci parti bi nga xam ne mooy Pastef les patriotes mooy nan lay def ba nasaxal parti bi di wax que ni ñun les jeunes de Pikine tey la ñu gën a dogu tey la ñu gën a taxaw pour xeex li nga xam ne mooy suñu àq ak suñu yelleef ba parti bii nga xam ne mooy Pastef les patriotes tànk yi nga xam ne amoon na ko muy tànki kanam gën a continuer ngir mën fa dem balaa maa sori damay jaajëfal plateforme F24 ci ndaje bi nga xam ne amal nañ ko démb ak taxawaay bi nga xam ne ndaw ñi am nañ ko fa di fàttali ni fii ma toog démb suñu frère le coordonnateur Babacar Ndiaye mi nga xam ne mooy le coordonnateur départemental de Pikine doon tamit vice coordonnateur national de la JPS de Pikine moo ngi fële tëdd ca Cap Manuel ci loo xam ne defu ci dara ci li nga xam ne Sénégal yi ñoo ko seetlu mooy jàpp bi nga xam ne ñoo ngi jàpp di traquer les partisans donc de Pastef les patriotes gannaaw Babacar fukki ndaw ak juróom ñeent yi nga xam ne ñoo ngi bokk si Pastef les patriotes ñoo ngi tamit tëdd fële ci kaso yi nga xam ne moo di 100 mètres ak fële ca Cap Manuel di wax ne li ñuy wax le président Macky Sall di ko wax askanu Sénégal mooy dañuy wax ndaw ñooñu nga xam ne dañ leen jàpp teg leen loxo te defuñu dara ñu bàyyi leen ci ni mu gën a gaawee leneen li nga xam ne ñoo ngi ciy woo bépp ndaw bu bokk Pastef woo ci bépp ndaw bi nga xam ne Sénégal moo la ñor mooy Sénégal dafa jot ñu libérer Sénégal te libération Sénégal yaakaaruñ ko lu ci ndaw ñi donc nous appelons les jeunes à la résistance résistance boobu dafa di loo xam ne dafa jiitu suñu juddu dafa jiitu suñu juddu rawatina suñu constitution may ñu ko moo tax dañuy woo ndaw ñëpp ñu pare fii ak fan yi ñëw ñu wan le président Macky Sall que ni tey la ñu gën a dogu pour xeex li nga xam ne mooy suñu àq ak suñu yelleef dañoo ne le président Ousmane Sonko dafa woote ne bokkul ci dialogue ñun dañ ko siy applaudir de deux mains dañ ko siy tàccu loolu ñu ko siy tàccu mooy koo xam ne yoon mayu la nga bokk sa candidature kenn bëgg ko dama ne le président Macky Sall élection yi moom munu cee bokk te du ci bokk dialogue boobu le président Ousmane Sonko ne du ci bokk dañoo ne ñun au niveau de Pikine dañ ko siy supporter à 100 pour cent te itam fekk yi fan yi néew amna li nga xamne ñong kay ngi koy dañuy wax les jeunes du département de Pikine jéggi nañu sax parti passif mais les jeunes yi nga xamne ñom ñoo nek ci opposition bi nek fi ci Pikine ñong leen di wo ñom ñep ñu paré li nga xamne yoon moo ko may suñu ak ak suñu yellef paré nañu pour xeex ko paré nañu pour won Macky Sall fukki weer moko fi dese fukki weer yoy daf koy doxal bu paré mu dem bay ñok le Sénégal ñu ñëw def benen Sénégal bu gën lu fi nekkee dañuy fatali suñu bop dellu di wat ñep que ni passef les patriotes tay lañu gëna taxaw tay lañu gëna dogu pour xex li nga xam moy notel xex li nga xam moy régime dictatorial bi nga xam le président Macky Sall mom la fi bëgg imposer. tay ci tay ñoo ngi wax ay procès yi di ñew ñoo ngi wax le dialogue mais le président Ousmane Sonko dafa woté à la désobéissance civile ci que yoy ñun Pikine duñ ci dess ginnaw lépp li nga xam ne le président inshallah allah moo ngi koy xaar pour le département de Pikine bu gestoo Pikine du si wéet benn yoon damay jeexal samay kàddu di ci daaneel ne Pikine musta des gannaaw ci xeex ci li nga xam ne mooy xeex ak yelleef donc Pikine tey la gën a dogu pour xeex ak ak yelleef yooyu wan que ni le président Macky Sall fukki weer yi ko fi dese na ko doxal dem organiser élection yu libre leer nañ te mom du ci bok Ousmane Sonko daf ci bok ci élection yi jëm Ousmane Sonko Pastef les patriotes amuñu plan B amuñu plan C na plan Z benn plan la ñu am le président Ousmane Sonko moy suñu candidat fu may jéxalé rek moy le frère Babacar Ndiaye bi nga xamné mom moom moo ngi tëdd fële ak ay ñoñam ñu libérer les détenus yi nga xamné dañ leena tek loxo de façon arbitraire et sans condition sans condition di wat bu baax nag ci cadre yi nga le président Ousmane Sonko li mu wax leer na mooy moom bu dem wuy ji donc comme moom du wuy ji nag ñun mënuñu lu dul toog di xaar ligne directrice bi nga xam ne moom moom lañ jël wala moom lañ dogal ci moom ñu ànd ceeg moom incha allah lu mu tam ñun Pikine du ñu des ginnaaw pour gunge ji Ousmane Sonko du ñu des ginnaaw pour gunge ji Ousmane Sonko ñoo ngi for ñoo ngi for si wewu bëy ñu ne dañ koy jëli ji ñoo ngi for si wewu bëy ñu ne dañ koy jëli ji bis buñ ko jëli ji lu ci munti xaw le président Maxal, est le principal responsable le président Maxal, est le principal responsable sinon également euh, tout à l'heure da nga wax que le frère euh, le Babacar Ndiaye chaque fois sur une communication dañuy porte aussi mon rappelez que ni Babacar Ndiaye il est le coordinateur de la JPS mais en dehors de Babacar il y a ñi nga euh, par exemple il y a la sœur Ami dont vous venez donc de parler tout à l'heure Baba Babacar muy Ami nous ñëpp en place du prison yooyu ñu c'est place si un njaboot la place si la donc dañuy wax que ni ñun ni Babacar Ndiaye également pour les 357 détenus yi nga xam ne ñoo ngi prison Sénégal hormis Babacar il y a frère par exemple c'est un membre actif également de la JPS nga xam depuis manifestation lañ ko donc nous, réclamer leur libération n'est-ce pas ñoom ñëpp la réclamer leur libération mais avons une fixation kese si Babacar mais libération yëpp ki nga xam détenu la politique nga avons une dañ ou pas ngir cause donc nous avons une ñaan pour ñu pour ñu bàyyi leen. Euh, gis nga ay diversion la ñuy def di wax ay waxu candidature ou autre ñun tëdduñu sax ba xaaju guddi ñu ñuy yee Ousmane Sonko du bokk c'est c'est impensable pour nous pour vous dire.

mu jëbal ko ko Ousmane Sonko doon candidat pour le parti de passer pour élection yi jëm 2024. Monsieur le Président Macky Sall, il faut savoir quitter la table quand le respect n'est plus là loolu moom benn message la bu ñu koy wax ñun jeunesse Pikine waaye ñun jeunesse Sénégal dañu sonn mais dañu doyal ci moom parce que on avait que deux avait signé que deux mandats moom moo ko wax ñun proposé wuñ ko te imposé wuñ ko moom moo xool bu mu mu constitution bi deux mandats la il a fait un mandat de sept ans et un mandat de cinq ans donc ça suffit donnez nañu vous gratuitement sur Canal Banlieue TV, la chaîne au cœur de la banlieue.